waaye dañu taxaw quoi ñuy wax après mu koy wax bàyyi ma bàyyi mu koy wax bàyyi ma moom muy wax après bu koy jam benn parce que dafa wax saa yi dafa xaaj paax bi rek jam waa ji nag yuuxu di woo borom place bi pour mu mu daanu. ñun balaa ñuy dem dem ci waaj waa ji ñoom tamit xaaj si jaay bu ñu jam ñu daw pour bu faray xeer waa ji mais aw waa ji bu mu daanoo la dee benn yoon séddul yóbbu la bu muy daanu yóbbu waa yóbbu wàll sax ak dafa daan rek dee parce que fu ñu ko jam moom fu ñu ko jam foo da benn rek ki la ko ci pour la ko jam ci pour ci bi rek. ban ci côté bi côté gauche bi quoi. nan nan mën nga ko ci sa loxo ñu mën a xam fan la réellement. non da koy jam fii quoi da koy jam benn yoon rek la dee. bu ko jamee ak bu mu ko diyee ay 14 heures et demi rek 14 heures et demi quoi. parce que gars bi waaye ñuy gars yi ñu ngi doon añ bi sax la daanu quoi boo xoolee war na yàlla ci boolu añ bi la daanu. parce moom bu mu jógee hôpital sax parce que benn grand ñu ngi doon waxtaan sax bu mu jógee hôpital moom yàggul. kan waaj. waaj bi ñu jam noonu. ba mu jógee hôpital yàgg day dem demoon jël ay traitement ci place bi la ñëw. ki ko rey mu tudd Abdou Ridis. Abdou nan Abdou Ridis. Euh, moom ba mu paree ba pare nan la def dafa daw wala. dem parce que dafa taxaw tuuti rek après gars yi bu ko song rek après mu dem mu jaar nii dem yoon parce que du gars yi bëri boo xoolee man ak man ak boo xoolee fii ay 3 personnes 4 personnes nekkoon. booy bi moo nekkoon fii ci place bi ak beneen grand bu nekk ci biir. moom bu muy daanu dafa woo grand kii nii pour kii booy bi muy daw dem ci tali bi pour jël taxi fekkee daanu taxi bi nangul sax arrêté kii bu muy wax taxi bi taxi bi dem nangul arrêté après bu mu daan sa waay dem. Abdou ci fan la dëkkee fii. fii ci ginnaaw fii ci ginnaaw fii ci ginnaaw. fii sax lañ commencé xam naa tey la ah, ma quoi vraiment xaw ma seen laa da laa boi liguei, eu fiz carreira. Não, liguei, boi, boi, liguei de carreira. Boi, muito é